qui finalement benn mal nécessaire. mais loolu nag mooy rôle état loolu la ñu woowee en économie un état stratège. Hmm. état bu yeewu état bu muus mooy état boo xamante ni tey da ngay gis sénégalais yi ñu ngi defar dans le transport. Hmm. aftu xam nga état dugalu ci xaalis. tataay pourtant ñu ngi def mission bu liggéey bu am solo. Hmm. mais état bi ñëw di leen concurrencer ci Dakar Dem Dikk. au mu fexe ba privé gérer Dakar Dem Dikk nga xamante ni. subvention bi ci état bi def chaque année xaalis bi mu ci def chaque année. du ko ci def te fu fu Tata di dem fu Dakar dem di dem rek Tata mi nga fay dem. Mhm. mais est-ce que maintenant dañoo war a euh, euh, coacher secteur privé bi ba nga xamante ni liggéey yooyu yëpp moo koy def wala état dafa war di concurrencer di mel ni kuy kuy wujjeeg secteur privé bi loolu benn la la deuxième chose suñu état yi dañoo jox respect trop entreprise étrangère yi. Mhm. facilité yi ñu am du bokk ak boo nekkee entreprise nationale. c'est boo nekkee entreprise nationale dañu bëgg nga ranger wu di bëgg li pouvoir bi bëgg. Mm-hmm. moo tax suñu secteur privé bi loolu moo koy affaiblir. Mm. dañu xaw a ragal euh, dëgëralanteeg pouvoir bi dañu bëgg daal mu liis lu pouvoir bëgg bëgg nañ ko lu pouvoir bañ bañ nañ ko. nekk ci doo pouvoir voilà à partir de ce moment léegi doo am mukk secteur privé boo am doole ba si ak ñu tas bëri ay organisation tubaab yi bu ñu ñëwee ñoom dañoo organiser wu. même bu ñu ñëwee Sénégal da gis. ñu créer cellule de veille mhm. cest à de veille mooy bu ñu nee entreprise française yi wala entreprise américaine wala ñoom dañu créer cellule de veille di xool nan la ñuy def bay capter marché Sénégal yi boo amul repondant bu mel noonu au Sénégal premièrement da ngay perte la deuxième chose seeni président pour ñu jàppale leen dañu naan Sénégal yi au lieu que ma lay jàppale di la aider man duma la aider léegi di la jox xaalis dama dama lay naan lan nga bëgg. Mhm. nga ne ah dama bëgg defar train wala dama bëgg. defar euh, euh, avion wala dama bëgg a defal lii mun la maa naa la yónnee samay entreprise ñu defaral la ko. Hmm. léegi nag naa la lebal 1000 milliards waaye 1000 milliards yi kat sama entreprise moo koy gagné. Hmm. sama entreprise ñoo koy defar sama yow daal bor rek ngay fay après dinga am infrastructure bi hmm. mais après infrastructure boobu ba jeexital lay am ci sa économie zéro nada. parce que ñun amuñu ay infrastructure économique. c'est-à-dire que nga ne bàyyi raay boo xamante ni day jóge vallée du Sénégal ñëw ba dakaar nga mhm. xamante ni parce que ceeb buñ ko bayee ci buntu buntu usine bi cheru fa mhm. mais li tax ceeb bi di cher mooy transport bi ceeb bi buntu entreprise bi buntu baykat bi matul dara mais boo bëggee ñëw yow jël benn camion def ci je dis n'importe quoi vingt tonnes wala trente tonnes mu indi la ko dakaar nga fay coût camion bi transport bi lépp kële jël. dix mille tonnes def ko ci benn bato jële ko Chine indi ko moo lay gën a ay coût mooy gën a mooy cher yow say coût donc ki jëlee ceeb bi bitim réew coût yi mu koy yi mu ci dépensé mooy gën a mooy cher yow muy jëlee ay vingt tonnes moom mu jëlee dix mill ton benn yoon wala mille tonnes benn yoon. Hmm. pour du ngeen bokk ay coût donc mbay ceeb bi day day ki koy kiy jën da koy mën a concurrencer ba bay ceeb bi dootul amati njariñ cest à nit buy bay ceeb ni nga koy jàppale. mooy fexe teg am benn mois de transport bu am doole bu mën a jël acheminer toute la production fi nga ko bëgg a yóbbu. ok loolu nag train rek moo ko mën a def. parce que train mën na ñëw benn train mën na remplacer cent camion mhm. ci ay benn train rek benn locomotive remplacer cent camions. c'est sûr mais loolu li mu mën a defar ci réew defar ci mbay am gis-gis ne ah man kat soble dama doon wax autosuffisance léegi am naa autosuffisance. Mm mais ñëpp bu ñu bàyyandoo deqeendoo bu ñuy jaayandoo ñoom ñëpp dañuy perte parce que il faut que ñu wàññi seen prix pour mën a jaay mm-hmm. boo wàññee say prix yow la nga cay am du bëri te léegi comme lépp dafa ñorandoo li yàqu day bëri nan la ñuy def ba bu production bi bare ñu mën koo conserver nga xamante ni chaque mois trente mille tonnes yi ñu soxla rek mooy nekk ci marché bi ndax mën nañoo béy quatre cent mille tonnes trente mille tonnes la ñu soxla par mois mais il faut que marché bi ñu defar ko ba trente mille tonnes di ñëw mais bu ñu ñëwandoo indi cent mille ou deux cent cinquante mille tonnes benn moment mais day yàqu par force après yeneen moment creuses yi soble ko creux yi soble commencé ñàkk ngay commencé di importer donc stratégie yooyu moo xaw a ñàkk au lieu que nga ñëw ba jam ñaaju def fa say euh, bureau waaw pour conserver produits yi hmm. euh, téye ko au frais parce que am nañu ay euh, Euh, je sais pas comment on l'appelle à Diamniadio ci fi nga xamante ni yenn produits alimentaires foofu la ñu koy conserver c'est chambre froide mais est-ce que chambre froide on en avait besoin à Diamniadio wala dañ ko dañ waroon dem ba Potou wala ñu dem ba Darou Khoudoss zone des Niayes boobu ñu def ko fa. surtout Potou li ñu li ñu suul si ay parce que foofu lañ koy bayee. Mhm. mais bul ñëw ba fii parce que baykat bi nga xamante ne Xaadim Bamba nga xamante ni moom 10 hectares lay bay wala cinq hectares. la muy am ci sobleem mais bu ñu naree jël transport indi ko ba loolu day perte. du ko jaral état moo ko fay fekk tegal ko fa benn chambre froide boo xamante ni moom bu bayee rek day mën a indi. Mhm. jaay ko parce que amaguñu entreprise yu mel ni Amazon. Mhm. boo xoolee tey lu tax grande surface yëpp daw Europe ñëw Afrique c'est grâce à Amazon Amazon léegi lu muy def boo nekkee grande surface nga xamante ni da ngay ñëw ci benn dëkk louer. espace fay ay fay ay nit ñu ñu lay eh, jaayal di fay impôt yu demee noonu Amazon day ñëw ne la yow boo demee di jënd kii nii embouteillage beeg tout dafa metti wax ma li nga bëgg man ci tool yi laa koy jëndee livré la ko. Hmm. léegi coût mooy gën a mooy cher. Mhm. parce que moom Amazon mooy gérer transport bi deuxièmement baykat moom bu bàyyee toolam ba mu pare rek da koy mën a jaay. Amazon ne léegi yow waxal carotte li nga bëgg léegi ñëpp bu ñu defee seen exprimer seen besoin journalier Amazon mën na ne tool bi tey moom dama koy jeexal hmm. ndax ñi war a jënd karoot ñëpp bu ñu jëndee tool bi day jeex léegi baykat moom ci buntu toolam lay jaayee lay jaayee ay mbiram. lu mooy prix pied du champ yi. tout à fait hmm. léegi Amazon day deqi rek indil la nga am nga am yow produit bu frais. Hmm. Amazon conservé wu ko donc du fay loolu euh, conservation léewul ay ay. supermarché dugal fa ay produits jël ay nit ainsi de suite donc coûtam day gën a faible coût grande surface yi. moo tax qu'est-ce qui se passe grande yi xam nañ ni dañu disparaitre par force. Mm. ñoom ñëpp ñu daw ñëw Afrique. loolu il faut que ñu jàppale baykat yi maintenant demande grande surface yi fi ñëw il faut que ngeen wut ay intermédiaires yoo xamante ni ñoo leen di représenter ci tool yi. di jënd affaires yi produits ci buntu tool bi parce que loolu rek mu mën a baykat bi. Mm. baykat boo xamante ne day bay pour dundal njabootam boo ko nee non indi ko Dakar nga jaay ko mais amul trans transport boobu du ko am te ñàkk transport boobu mooy tax seen produit di yàqu mooy indi ñuy mer ñooy indi xonet mais organisation boobu moo amul. boo ñëwee par exemple ci wàllu kinaar wala jën wala leneen ku mel ni am nañu ñun benn champion bu mel ni Babacar Ngom mais nañ ko jàppale. Mm. ci benn stratégie nekk ko ah Babacar léegi yow ni nga toll ci ci jën. kon ci ci ginaar li ñu lay ñaan mooy léegi boo ñëwatee Pikine mhm. wutal boutique boo xamante ne xale bu defar buy defar bu yar poulailler bu pare rek ñëw jaay ko mhm. c'est-à-dire que yow tu n'as pas besoin ngay produire xoolal zone yi xale yi kuy góorgóorlu yar yar fukki ginaar wala ñaar fukki ginaar bu matalee rek na ñëw yow nga am boutique boo xam yaa koy jënd ndax am nga mat doole pour mën koo conserver nga xamante ni ginaar goo gu ñoo gu ñoo jaar yow di nga ci am dara ñoom dinañ ci am dara nga xamante ni xale yi duñu nekk say concurrence mm. mais dañu nekk say fournisseur nga mm-hmm. xamante ni boo ko defee dans tous les quartiers tous les quartiers léegi xale yi dañu mën a liggéey seen quartier Euh, am compagnie boo xamante ni mooy ramasser ginaar yi yóbbu ko foo xamante ni mën na koo denc mën na koo jaay mën na koo transformer en KFC. loolu mooy tax xale yi am liggéey loolu organisation yooyu moo manqué Sénégal te loolu nag du ñu woowee un état stratège état bu yeewu moo koy def mais malheureusement suñu état yi moom. tabax tëri lañ lañu gën a def. Mhm. Mhm.